بسم الله الرحمن الرحيم ci turu yàlla mi yërëm mboole mi jaamam di jagleel ñàkk a gëm yërmaande yowmal qiyaama hal ataaka xadiisul gaashiya ama ndax dikkal na la waxtaanu lay muur lépp wujuhun yawma idin xaashiya ay kanam keroog yowmal qiyaama dana nekk loo xam ne lu toroxlu la aamilatun naasiba yu liggéey sonn ci liggéey ba lool tasla naaran xaamiya teewul ñu weer leen lakk leen ci sawara boo xam ne bu tàng la tusqa min aynin aaniya dees na leen nandal ci benn déeg boo xam ne fa tàngaay yem fa la yem laysa lahum ta'aamun illaa min darii' du leen fa ñeel lenn lu ñuy lekk lu dul li nga xam ne darii' la lenn sunu maam daan ko firee gargamboose laa yusminu wa laa yugnii min juu' loo xam ne du leen duufal te doo leen jëriñ ca seen xiif ba ñu xiif wujuhun yawma idin naa'ima bu keroogee daan gis ay kanam yoo xam ne ña nga bég lool li sa'yiha raadiya ngir jëfam ba nga xam ne dañ koo gërëm fi jannatin aaliya mu nekk ci ajjana yoo xam ne yu kawe lay doon la tasma'u fiha laagiya ci biir àjjana jooju kenn du fa dégg benn waxi puukaree fiiha aynun jaariya ci biir àjjana joojee nekk na fa ay déeg yoo xam ne ña ngay daw fiiha sururun marfuuca nekk na ci biir àjjana yooyee ay lal yu ñu kaweel wa akwaabun mawduuca nekk na ci it ay kopp yoo xam ne nii yu fees yu ñu teg wa namaariqu masfuufa nekk na fa it ay coussin yoo xam ne yu ñu rangale la wa zarabiyu mabsuuta nekk na ci it ay tapp yoo xam ne yu ñu tallal lañu afalaa yanduruuna ila al ibili kayfa xuliqat amoon ndax nit ñi xooluñu jëm ci giléem yi nit ñi leen binde وإلى السماء كيف رفعت amoon na xoolu ñu jëm ci asamaan ni ñu ko yëkkatee. wa ilal jibaali kayfa nusibat. amoon na nit ñi xoolu ñu jëm ci montagne yi ni ñu leen sampee. wa ilal ardi kayfa sutihat. amoon na gis ñu suuf ni nga xam ne noonu la ko yàlla tàllalee. fa zakkir innama kunta mudakkir fàttalil yow day nekkoo lu dul ab fàttalikat lasta alayhim bi musaytir yow day nekkoo koo xam ne nii yaay nekk di leen supp di leen surveiller illa man tawalla wa kafar amma képp koo xam ne dafa wëlbatiku daal di weddi nag fa yu'adhibuhu allahu al-'adhab al-akbar ku mel nii de yàlla dana ko mbugal mbugal ma gën a màgg inna ilayna iyaabahum nekk na jëm ci ñun seen delluwaay tumma inna alayna xisaabahum gannaaw ba nekk na jëm ci ñun réglé bañ leen di réglé bi su penc